Sénégal moo nu jox euh, contrat ni mu joxe Flex O ak CO ni mu joxee euh, SOGES contrat pour que jox bu askan bi am ndox bu doy ak ndox bu sell waaye nguur Sénégal ba mu ñuy jox contrat waxuñu ne euh, population bi mooy dicter gestion bi naka lay demee bu yëf yi jaaroon yoon mais nguuru Sénégal du egg si si réforme bi c'est parce que dafa amoon ay problème tey jii nguur bi pare na parce que dans quelque semaines nguur euh, dafa am remise à niveau yi day démarrer branchement sociaux yi day démarrer mooy ay milliards yoo xam ni nguur bi dafa soit mu leb ko wala mu wuti ko pour dugal ko si ndox bi mais à côté mënul ñun mënuñu ñu seetaan ay nit yoo xam ne dañuy jël ndox bi di ko utiliser di naan di liggéey di def lu leen neex te duñu fay ndox parce que nguur buy dem lebi il faut mu rembourser donc il faut que nit ñi fay seen facture yow da ngay fay sa facture man damay fay sama facture Sénégal yëpp dañuy fay seen bi ñuy wax ni am na ay nit yoo xam ne dañuy fay seen facture mais pourquoi benn groupe euh, dix personnes dirigé par un conducteur de surcroît employé boo xam ne am Aquatec moo koy fay chaque fin du mois muy dicté loo am du fi donc ñun li ñu wax c'est mais branchement clandestin compteur yoo xam ne dañ ko nëpp yooyu yëpp gis nañ ko on a des preuves on a déposé nañu plainte na na euh, comme on dit euh, na ku nekk def liggéeyam mais ñun on a des preuves concrètes te dinañ topp nit ñi parce que faux et de faux dafa am branchement illégal dafa am sortie médiatique euh, dafa am lépp am na déposé nañu démb plainte brigade de Mekhe te dinañ ko topp incha allah non seulement dinañ topp kooku mais dinañ topp ñi nga xam ni ñoo ko wër parce que ñi ko wër xam nañ li tax ñu wër ko ay nit la yoo xam ni bu ñu leen saytoo. am amuñu ñu ñu ngi utiliser ndox depuis des années duñu fay parce que am na amuñu compteur wala ñu nëbb compteur bi ñu am branchement direct boo xam ni waa jooju ñuy wax ne depuis vingt ans mi ngi fi mooy doomu dëkk bi moom moo leen koy def. ah xam nga xaalis euh, bu jaarul si yoon kenn xamul fu muy jëm dañu ne xaalisu ndox dafa war a dellu si ndox moo xam muy branchement. moo xam muy adduction d'eau moo xam muy remise à niveau mais dafa war a dellu si ndox bi mais xaalisu ndox bi warul dellu si poche bi parce que lu tax Aquatec nekk forage u Tilor caar Tilor di fay euh, conducteur di réparer pompe yi euh, il y a deux mois réparé nañ pompe près de 4 millions di fay carburant di fay électricité ba pare moom muy encaissé xaalis bi di ko dugal si poche bi pour lan mais bu dee loolu buñ ko naree def bu ko seen lekk doon def wala seen mais amul benn société boo xam dina toog donc loolu euh, fraude la déposé nañu plainte te dinañ ko topp non seulement dinañ topp kooku mais dinañ topp ñi nga xam ni ñoo koy jàppale ci fentale euh, pour parce que simplement bëgguñu bu ñu ñëwee euh, ñu gis le kii dinañ changer conducteur bi parce que nee nañu doomu réew mi ñu ne doomu réew mi depuis vingt ans mi ngi liggéey doomu euh, gox bi doomu ci loor wala mel noonu mais c'est pas parce que doomu ci loor la que dafa dafa jub kaso Sénégal ay sénégalais ñoo fa nekk mais sénégalais bu deful loo xam ni yoon la dañ koy tëj bu sénégalais bu détourné dañ koy tëj kaso Sénégal du ay japonais wala ay indien ñoo fa nekk ay sénégalais ñoo fa nekk donc bu dee doomu ci euh, loor la depuis vingt ans muy def naka sa dul noonu. di jël xaalis bi di ko def ci poosam wala di def lu ko neex di brancher nit ñi euh, illégalement dañ koy arrêter c'est ça qui est la vérité non seulement dañ koy arrété mais comme pour wan nit ñi ne ñu nekk ñu fii di xeex nit dañ koy remplacer par keneen am na benn conducteur boo xam ne jël nañ ko Mérina Dakhar la dëkk jabaram Mérina Dakhar la nekk doomam Mérina Dakhar lañ nekk dañ koy jël installé ko foofu te kooku defe naa euh, ñi ma gis télé ñuy ñuy ñuy ñuy yooxu dama yaakaar ni loolu euh, du ñooñu ñoo ñuy arrêté parce que ba may jiy xool élément bi dama doon retaan lu tax ma doon retaan parce que dama gis euh, kilifa bu taxaw ne ndox amul ci lor à côté moo ma gis benn xale buy ubbi robinet di naan loolu yàlla moo ko weddi donc ñun nekkuñu ci polémique dañu nekk ci liggéey parce que jox askan ndox surtout Sénégal dafa metti fépp a ñàkk ndox Sénégal France Inde États-Unis ndox bi moo commencé raar donc li ñu am astut bi ñu am dañ ko war a sàmm pas nit ñi di ko pasare pasare parce que maraîcher boo xam ni amul compteur euh, xam nga lu may def day ubbi vanne bi muy sotteeku guddi ba le lendemain loolu pour bay mais comme du amul compteur te du fay dafa yàq ndox yàq ndox nag si suñu liggéey la ko dañ ko war a xeex te dinañ ko xeex incha allah. Monsieur Pablo, vous êtes la Guadeloupe de que répondez-vous aux populations qui étaient sorties pour dénoncer vous savez, les sorties médiatiques euh, sont souvent euh, justifiées, mais parfois euh, ne le sont pas. Celle de Tilor ne l'est pas. dans le Merena Dakar. Euh, j'ai bien suivi l'élément, j'ai écouté les deux éléments wolof et en français. Euh, il est vrai que ce sont des populations, euh, malheureusement, qui sont manipulées. Euh, tout ce qui a été dit, c'est un tissu de mensonges et d'incompréhension, de, de hein, parce qu'il faut scinder les deux, mensonge et incompréhension. Euh, à preuve, Au moment où dans votre élément, il y avait quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas d'eau, euh, je voyais derrière un jeune garçon en train de boire. Euh, nous avons changé la pompe de Tilor y a deux mois pour près de millions. Moi qui vous parle, je sais qu'à Tilor, il y a de l'eau depuis qu'on est euh, en place, depuis que la DSP est en place. par rapport au changement euh, du conducteur, aussi, ils ont, ils ont complètement refusé aussi. bah, euh, je suis d'accord, mais ils ont pas le droit. Nous avons un contrat avec le conducteur. Euh, c'est un employé d'Aquatec. Ils n'ont pas à dans la gestion d'Aquatec. Aujourd'hui, à la Sénélec, si la Sénélec a un problème avec un des agents de la Sénélec, ce pas à la population de le régler. C'est une affaire privée. Il se trouve que ce conducteur-là, depuis euh, des mois et des mois, depuis près de deux ans, euh, et euh, fait beaucoup de malversations, euh, à des pratiques douteuses, des branchements clandestins, euh, des détournements de fonds, euh, des fausses factures et surtout des sorties médiatiques, alors qu'à la fin du mois, il va toucher son salaire avec Aquatec. Ça ne peut pas durer. Nous avons décidé Euh, après des preuves et des, des, investigations, nous avons eu des preuves, nous avons décidé purement et simplement de le licencier. Après, évidemment, tout un processus de mise en demeure, d'alerte de, de, d'avertissement, nous avons décidé tout simplement de nous séparer de lui parce que c'est un élément euh, qui n'est pas que D'autant plus que ce conducteur était en intérim, donc euh, se débarrasser de lui et mettre à la place un conducteur méritant, euh, c'est ce que c'est ça la volonté d'Aquatec. et nous allons l'acter d'une manière ou d'une autre. C'est un mélange de tout. Ils citent des noms aujourd'hui, ces gens, parce que la réalité, euh, je vais vous la dire, c'est que tous les gens qui parlent, euh, que j'ai vu à la télé, ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce que les vrais instigateurs, vous ne pas vus à la télé. Ils ont organisé un peu tout ça, ils ont pris des petits garçons Euh, de 5 ans, 6 ans, qui savent parce que c'est une délégation de service public. Ils ont pris des femmes qui sont venues avec des t-shirts. C'est ce qui se passe un peu au Sénégal. Ils achètent des t-shirts, mais les vrais instigateurs ne sont en réalité euh, pas devant la caméra. Ils se mettent bien à l'ombre et ils instrumentalisent les gens. La réalité, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui dans le forage de Tchartilor et dans d'autres forages qui ne payent pas l'eau, en général, euh, c'est la catégorie, dans la catégorie des maraîchers. Il faut comprendre une chose, c'est que nous avons un contrat de délégation des services publics avec l'État du Sénégal. Le contrat est clair. La première priorité, c'est l'eau à usage de boisson. C'est d'abord ceux-là qui doivent boire. Ensuite, dans la catégorie euh, suivante, vient euh, l'élevage. Et les maraîchers sont en troisième position. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment d'eau, il n'y a pas maraîchage. Ce pas nous qui l'avons inventé, c'est un contrat. C'est l'État qui, a fixé les, règles. Maintenant, nous, n'avons aucun intérêt à ce que le maraîchage n'existe pas. Mais si ça doit poser des problèmes dans la survie des populations, nous allons soit l'arrêter, soit le rationner. C'est notre droit. Mais au-delà de tout ça, ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'il y ait des qui ont des compteurs euh, cachés, qui ont des branchements clandestins et qui se permettent, dès l'instant où on veut arrêter cette pratique, de sortir à la télé et de faire des sorties médiatiques pour décrier la gestion. Ils n'ont pas de gestion. Le conducteur, ce n'est pas lui qui gère, c'est Aquatec qui gère. Le conducteur d'Aquatec est sous la responsabilité du directeur de l'exploitation, qui lui donne des ordres. Il ne fait qu'exécuter les ordres dans le sens des volontés d'Aquatec. Ce ne de décider qui doit être là-bas. Par ailleurs, j'ai entendu dans l'élément qui disait que, à la limite, ils accepteraient le départ euh, de, du conducteur euh, présent, ce qui n'est pas de leur ressort, mais qu'ils autoriseraient cela à condition qu'on mette un fils euh, du, pays, ter, du terroir. <laughs> C'est ce qu'on est en train de faire. Celui qui doit le remplacer, c'est quelqu'un de Merinandara. Et je pense, si je ne me trompe pas, que Taylor se trouve dans le Merinandara. Donc, c'est toutes des, contradictions qui n'ont plus. Moi, je dis simplement, M. Diop, nous avons un contrat avec l'État du Sénégal. Notre contrat est très simple donner de l'eau aux populations. Le prix du mètre est fixé par l'État du Sénégal. Par ailleurs, j'ai entendu parler euh, des, des frais de coupure, <laughs> mais des coupure sont fixés par le contrat. Ce n'est pas nous qui fixons les frais de coupure. Les frais de coupure de, la, de Seine-Eau ou de la Sénélec sont fixés par l'État du Sénégal. Donc, c est, c est, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas qu'on fasse le même. Notre contrat, c'est de donner de l'eau aux populations. Et nous allons le faire. Nous savons le faire et nous allons le faire. Maintenant, tout ce qui tourne autour, euh, les problèmes politiques, crypto personnels, les problèmes de village, les problèmes de tout, ce n'est pas nous qui les gérons. Nous sommes privés, nous ne sommes pas publics. Donc, on n'acceptera pas aujourd'hui de nous faire dicter la loi par un groupe de personnes simplement. Ce n'est pas les populations, encore une fois, qui sont manipulées. C'est un groupe de personnes, pour leurs propres intérêts, qui décident de médiatiser certaines, certains actes et d'aller jusqu'à la déformation et le mensonge pour pouvoir euh, être dans leur, euh,